defe nañu ni pour sa àdduna baax foog nga am non seulement foog nga nga am parce que ci biir migrants yi da nga gis ñoo xam ni dañuy jaay seen boutique 5 millions dem da nga gis ñoo xam amoon nañu liggéey ñu ñu dem semble-t-il même que des enseignants yoo xam ni ils sont partis jaar ci Nicaragua. bien sûr donc ça veut nit ñi léegi yematuñu rek ci am message cest à dañuy seet léegi confort ak luxe donc dugg nañ carrément ci société matérialiste nga xam ni pour nga pour nga am moom la ñuy woowee tekki fokk nga am yenn standing de vie il faut ci jumaa yi moi je pense que comme état bi wax na ba sonn euh, voilà yéen ñi wax ngeen ba sonn affaire bi setul il faut vraiment ci jumaa yi ci daayira yi si seen ngëm-ngëm ñu fekk leen fii jàngalaat leen lan mooy lan mooy l'islam bi bu dee jullit yi lan mooy christianisme jàng leen aussi que adduna bi mënul nekk forcement rek rapport rapport am ensuite xale yi aussi dañuy bëgg à vingt cinq ans li nga bëgg sa àdduna yëpp nga am wala doo am yenn jaar-jaaru coono yi loolu foog ñu wax ci ak ñoom wax ci aussi ak parents yi parce que parents yi ñoo leen ci ñoo leen ci ñoo leen ci bëmax dañuy dañuy dañ dañ ci xam dañuy dem xale bi ñëw yóbbu sëriñ mu takkal ko benn téere ne ko bii moom boo ko takkee bu neexee yàlla moom doo lapp doo kii nag ah, finalement yooyu yooyu c'est c'est profond cette affaire là parce que dafa nekk ci gëm-gëm bi te parents yi ñu ngi ci biir dañuy xam dañuy tegi seen natt joxe dañuy jaay seen or di joxe xale yi dem loolu fokk ci jumaa yi ci ci ci jàkka yi ci église yi ah, ci daayira yi ñuy waxtaan ak ñoom bi ki def nag mooy état bi jël ay responsabilités ci wàllum chômage parce que aussi euh, xale boo xam ni da nga génn université ak un master wala une licence génn stage sax mënoo ko am mais yaa ko presque yaa boo gisee ñuy marché ñu bëri fii mais ñu si bëri amuñu liggéey. Mm. qu'est-ce qu'il faut après dañoo jël gaal gi parce que il leur faut une solution parce que toog nañu presque 35 ans sa yaay di la jox encore wala sa papa la jox ndékki. Mm. wala la jox paasu Dakar c'est ça la problématique. il faut que état bi jël en charge ensuite jël pour man xale yi nga xam ni am nañu master am nañu diplôme am nañu qualification tàmm nañu bourse donc tàmm nañu xaalis delluwaat seen kër bourse boobu dagg. mais état bi dafa war a dafa continuer bourse bi il faut nécessairement que xale yi ñu leen di accompagner euh, au même titre que ñu def ay bourses familiales mais dafa war ay bourses d'accompagnement xale bi génn benn bi génn université mais jox ko dara par weer jox ko dara par weer cinquante mille je ne sais pas soixante quinze mille francs su ko defee dina ci mën a jënd ndékki dina ci mën a euh, toppatoo ay dossier bu fekkente ni dafa wut ay wut ay dossier casier judiciaire tout ça c'est de l'argent bu fekkee wu pour euh, wuti pour pour déposer dossier mais même chose mais xale yi aussi le temps que ñuy am ñu am liggéey il faut nécessairement que état di leen accompagner.